أعوذ بالله سميه العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان وبالهدى إلى يوم الدين ورد الله القالد عن شيق الشيوخ برزق البرازيق تاج العارفين ممد كل أولياء الرحمن بالعباس أحمد بن محمد السالم التجاني وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن نهج نهجه وسلك طريقه القويم إلى يوم الدين ورد الله القالد عن طليل أسمان سيد الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنه وعن شيخه الولي الأشهر والمجاهد الأكبر مولانا أبي الحفص سيدي الشيخ عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به آمين وأيد الله ونصر الخليفة العام للطائفة التجاني سيدي أبو بكر سي ابن سيدي محمد المنصور سي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 والمستمعات في إذاعة سفينة اف ام 98.2 نسلمكم في هذه اليوم المبارك ونهنئكم فيه ونرحبكم ونقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تبارك الله gannaaw bi سنتي sante yàlla cant gu yellok jëmmam ju tedd ju mag ja julli ci sangu-sang yi muy wujudi wa alami shuhudi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla sun borom yàlla yàlla dole ràng ay garat ak ay maqama ki nga xamni moy sunu wasila suñu digeentek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam مي مولانا السيد الشيخ أحمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه يعني على سن بورم يعني على دولي كاتل دولي ويرل دولي غودل فانو سنو قالي جنرال تيجان دي سيرين بايس منصور اك سنو قالي فمام شيخ عمر الفوتيو دي تشرن محمد البشير تال اك مبولم كلفاوي ينك تي ريومي ييب te seen toogaay nekk toogaayu diine lislaam seen mbokku daara Pape Makhtar Sylla moo dellu siwaat ak yéen fii ci seen rajo Safina FM 98.2 point 2 ci ndimbalal yàlla ak kàttanam ak baaxam ci seen émission bi ñuy def àjjuma bu jot su 10 heures jotee ba midi tudd Miftaahul Huda ñaan yàlla suñ boroom tur yàlla na wuy boroom mooy caabi njub secret njub yàlla na ko yàlla def ci suñu xol yi def ko ci suñu jëmm yi def ko ci jëmmi mbooloo mi jullit ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi nuyu waa réew mi yëpp ak waa bitim réew képp koo xam ni yaa ngi ñuy déglu ak foo ñuy dégloo ñu ngi lay nuyu di la jox suñuy loxoy xol waaye di la ziyaar ziyaar bi yàlla suñu diggante ak yow di jiital ci nuyoo ak ziyaara yi kilifa diine yi tudd naa leen léegi Serigne mbay Sy Mansour ak Thierno Mouhamadul Bachir ñu yóbbaale mboolem xalifa yi nga xam ni ñoo nekk ci réew mi yépp waaye nuyu boroom réew mi muy président Macky Sall ak soxnaam soxna Marème fay sal ak mbooleem ñi koy jàppale ci liggéeyu réew mi di leen ñaanal yàlla li nu bëgg ci réew mi ak fa nu bëgg réew mi àgg fa yàlla yàlla dooleel leen may leen kàttan ba ñu yóbbu ko fa ak sago ndax suñu maam ju baax yàlla yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem di maam alxaaji Abdul Aziz dafa daan wax ni soo amee sa ëmb ëmb nekk ci gaal bul ñaan sa ëmb mucc ñu ne ko moo maam lu ñuy ñaan mu ni da ngay ñaan gaal gi mucc su gaal gi muccee sa ëmb mucc nga mucc te réew mi nag di Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk te suñu ëmb ak suñu ëmbaat yi suñu yëpp ngi ci biir suñu maam yu tedd yi ñuy tiitaroo ñu ngi ci biir suuf si suñu baay yu tedd tiitaroo ñu ngi ci kaw suuf si ñun ñu nekk ci kaw ak suñuy doom kon jàmm rek lañuy ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla def jàmm jooju nag soo koy ñaan danga koy ñaanal ki nga xam ni moom la yàlla teg réew mi ci loxoom ndax réew kenn du ko jox sa bopp yàlla la koy jox قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء دخلا بيدك الخير انك على كل شيء قدير كون بوكو نتي نيانال سبور ولا نيانال سنجيت دا بوكو سي گم يالا اك نانغكو كون نيونكو نيانال يالا مون بريزيدان ماكي يالا يالا يالا يالا gën a may ko wér may ko kattan gën ko ubbil ay bunt ba fi mu bëgg réew mi àgg fa daal mu yóbbu ko fa ci sago ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu tamit mboolem ku nekk ci réew mi di góor jigéen mag ndaw ak taxaw boo taxaw ak toogaay boo toogee ak foo mën a nekk ak foo mën a bokk Pape Makhtar Sylla mi ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal yàlla yàlla defal la jàmm defal la sutura nuyu bu baax ñi nga xam ne ñooy suñuy auditeur nga xam ne àjjuma bu jot ñu ngi ànd ak ñun ci émission bi ku mel ne Mouhamadou Lamine Ngom di suñu xarit di suñu wëllëre di suñu soppe àjjuma bu jot muy ànd ak ñun ci liggéey bi daanaki mën naa ni bokk ak ñun sax liggéey bi ñu ngi koy ñaanal yàlla yal yàlla defal ko tawfiq xaaji Daawuda Njaay bu Sëriñ Abdul Aziz Al Amin nekk ci Mbuur ñu ngi koy nuyu moom tamit bu baax di ko ziar xajji bisi xajji mut sàll al oustaz Mouhamadou Mansour Fall nga xam ne ñoo daan bokk toog def émission bi tey ngante am looloo tax ñu ngi koy nuyu moom tamit bu baax di ko ziar di ko ñaanal yàlla defal ko tawfiq nuyu mboolum koo xam rek waxtu wi yaa jàpp 98 point sa mbokku daara Pape Makhtar Sylla nuyu soxna yi tedd yi ñuy teewlu soxna Mati maam Cheikh Oumar Foutiou soxna Ami Fadior soxna Bale Ndiaye soxna maam Diarra Sy ñun ñëpp ñu ngi leen di nuyu soxna Kouma Mbaye soxna Koddu Seck et tubaarakallaahu soxna Nafisatou Der ñoom ñëpp tubaarakallaahu ñu ngi leen di nuyu waaye fàttewuñu tubaarakallaahu madame Sall di soxna Maymuna Gise ñu ngi koy nuyu bu baax mama Sahaba Diop ñu ngi lay nuyu bu baax tubaarakallaahu di la ziar di nuyu mboolem koo xam ne rek jamono bi yaa ngi ànd ak sa mbokku daara Pape Makhtar tubaarakallaahu ci seen émission bi nga xam ni moo tudd tubaarakallaahu Miftaahul da di ndokkale itam ñëpp nag ci xew-xew yi jàll rawatina xew-xew yi nga xam ni moo nekk ci sunu kanam ndax xam ngeen ni nitu yàlla bu bi muy Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu journée boobu nga xam ne at mu jot ñu taxawal ko ko fii ci Sénégal ngi tàmbali tey àjjuma ak suba gaaw ak gannaaw ëllëg di dibeer àjjuma samedi dimanche mu ñetti fan yoo xam ni yu am solo la tey xadratul juma bu mag la def ca grande mosquée ba ëllëg mu am conférence ci téwayu khalif général Tijane ak porte parole ba Serigne pam malik si sunu bay gannaaw ëlëk di dimanche nek bis bi nga xamni ci lañ koy collecteur nga xamni reuy gi mu reuy ak kin koy defal reuy gi mu reuy motax tax at mu jot buuru Maroc fay yabal délégation bu mag ñu ñëw téwé lolu ndax ñom xam nañu kan mooy Seydi Cheikh Ahmed Tijani Chérif radiallahu taala anhu loolu moo tax tey ci suñu émission ñu bëgg waxtaane tuuti ci wàllu tasawuf tasawuf nag suñ ko waxee mooy yoon wi nga xam ne dafay tàggat nit ki jëmale ci yàlla subhaanahu wa taala loolu mooy tasawuf muy yoon woo xam ni dafa gaaw pour jël nit ki yóbbu la ci yàlla subhaanahu wa taala yoon woowu nag ci ci yàlla defal minhaaj xam nga ab tariq day firi yoon al minhaaj day firi yoon ashaari day firi yoon yooyu yëpp day firi yoon waaye yoon wi nga xam ne moo gën a yaatu boobu la ñuy tuddee minhaaj boobu la Sidi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif yor gën a yaatu gën a jub gën a gaaw mooy yoon wi nga xam ni moo gën a yaatu pour dem ci yàlla moo gën a gaaw pour dem ci yàlla moo gën a jub pour dem ci yàlla moo ëpp sécurité pour dem ci yàlla loolu mooy ban yoon mooy yoonu tasawuf bi nga xam ne mi ngi jaale ci tariqa sayidi cheikh Ahmed Tijani Cherif radiyallahu taala anhu lu tax yoon woowu gën a jub mooy yoon wi nga xam ni sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko xàllal sayidi cheikh ahmed tijane bari na tarixa yoo xam ni seeni boroom ñoo ko xàllal seen bopp waaye tarixa tijane sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko xàllal sayidi cheikh ahmed tijane te yonent bi ku mu xàllal mu yaatu yonent bi ku mu xàllal mu jub yonent bi ku mu xàllal mu leer ndax ki ko xàllal ku mu xàllal saw xàll du yam ak weneen xàll te yàlla ko xàllal yàlla ni yonent bi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ni ko labbayka ya rabbi mu ni ko wa anna haza siraati mustaqiman fattabicuuhu wala tattabicu subula fatafarraqa bikum ansabili wa anna haza siraati yenent bi mu ni labbayk yaa rabbi mu ni ko sama yoon a ngi nii wa anna haza siraati sama yoon a ngi nii yonent bi ni tekk di déglu sunu boroom mu ni ko mustaqiman yoon wu ni coow jub la amul dëng-dëng laa iwaja fiha wala amta fiha yoon wu jub mu ne ko fa tabiuhu na ngeen topp yoon wi waaye wala tattabiu subula fa tafarraqa bikum an sabili bu leen topp ñàll yi mooy yoon yu ndaw yi su ko defee yoon yu ndaw yi bu ngeen ko toppee moo leen di réeral ba ngeen wàcc yoon wu mag wu jub wi loolu ci diini lislaam la mooy bul topp benn diini bu dul diini lislaam yonent bi it sallallahu alayhi wa sallam bi muy xàllal Seydi Cheikh Ahmed Tidiane dafa fekkoon Seydi Cheikh Ahmed Tidiane jàpp ay tarixa muy ay yoon dafa fekkoon cheikh jàpp ay tarixa jàpp ay yoon yonent bi jaar ak moom fa sunu boroom jaaroon ak moom ni ko cheikh mu ni ko labayka mu ni ko cheikh mu ni ko labayka mu ni ko fatruk jamia ma bi agassa Cheikh Tidiane mu ni labbayk mu ni lépp loo jàppoon na ko bàyyi lépp loo jàppoon tegal ci suuf fatru jamia ma bihi arasa lépp loo jàppoon bàyyi ko cheikh jël li mu jàppoon yépp teg ci suuf ngir lan kàddu maamam mboolem tariqa bu mu yoroon mboolem lu mu daan zikkar cheikh bàyyi ko teg ko ci suuf léegi nag balaa may ñëw ci cheikh ak tarixa bi dama ubbee woon tasawuf lan mooy tasawuf lan mooy tasawuf التصوف أساسه الإحسان في العبادة أساسه الإحسان في العبادة والزهد في الدنيا والزيادة والجهد في تزكية النفوس من الرياء والبهد والوساوس فهذه حقيقة التصوف وليس في الرخص ولا تطرف تصوف لأنه يتصوف تصوفنا tasawuf tasawuf nag xewul tey xew sallallahu alayhi wa sallam ñoom abu hurayrata ay mutasawifuuna la ñu woon ñoom abdullah ibnu masud ay mutasawifuuna la woon ca jàkk ji lañ dëkkoon di wéetal yàlla seen borom mu ni tasawuf boo bëggee xam ne mooy tasawuf mu ni al ixsaanu fondement tasawuf mooy lixsaan al ixsaan xam nga lislaam dafa taxaw ci al islaamu wal imaanu wal ixsaan ixsaan nag mooy daraja ji nga xam ne ci ngay fuglu wanteeg sa boroom subhaanahu wa taala nga xam ne léegi jaamootoo yàlla ci ay cër kese kese jaamootoo yàlla ci cër maqaama lexsaan su ko nit ki amee dootul jaamu yàlla ci ay cëram kese kese julli woor dem màkka joxe azaka déedéet lexsaan maqaama bi boo fa àggee sa mbooleem cër yi day yàlla xol bi xel mi jëf yi lépp day yàlla parce que dimension la boo xam ne yonent bi moo ko jàngale an taabudallaha ka annaka taraawu da ngay jaamu yàlla ba mel ni yow Pam Silla yaa ngi jàkkaarloog yàlla di ko gis ci sa bëti xol yi yaangi jakarlo yàlla diko gis ci sa bëtu xol yi ndax yàlla beut yi beuti aduna yi moy beut yi nek ci sunu kanam yi du gis yàlla la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful qabir beut du gis yàlla ndax beut amul leer ci leeru jambour lay gis te lu amul leer mënul gis lo xamni léppam leer la lo xamni tamit gisam dañ ko limiter mu am fu mu yem mënul gis lo xamni gisam lo xamni ne jëmmam ja kenn limité wu ko te jëmm yàlla ja amul xadd amul fumu tambalé amul fumu yam mom moom yàlla subhanahu wa taala wasia kursiyuhu as-samawati wal ard xam nga yow kawnu bi ci sa xel aduna ak asaman ak suuf moy aduna bi ha asaman ci ak suuf moy aduna bi ci sa xel te yàlla waxal na boppam ci alquran ci ayatul kursi ne siis ba muy toog mu ëpp asamaan ak suuf te boo mel ni Pape Makhtar soo doon xool yàlla da ngay xool teen ci kaw yaakaar ni yàllaa ngi ci kaw waaye ma fa waaye mu ci suuf ndax sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam al isra wal miraj bi muy rañaani téere yi ne daje naag benn malaaka quatrième asamaan ñeenteelu asamaan malaaka bi nuyu ko gaawantu mu ni ko ah dafa mel ne da nga gaawantu de mu ni ko ah, dama nekk ci yitte yàlla moo ma woo ca taxta zara même heure bi mu woo Seydina Mouhamad ca malaul aala pour waxanteeg Seydina Mouhamad malaaka boobu même heure la wax yonent bi bu dee heure am na pour nga dégg foofu heure pour nga dégg su dee waxtu am na eh, ni ko même heure boobu la ma yàlla jox man tamit ca taxta zara fa la ma war a recevoir te kii mu ngi jóge ci suuf jëm ci kaw kii ni ñi jóge ci kaw wàcc ci suuf kii ni ko yàlla moomu woo fële kii ni ko may yàlla moomu woo fii ma tax mu ne ka annaka an taabudallah ka annaka taraawu nga jaamu yàlla ba mel ni yow yaa ngi gis yàlla fa in lam takun taraawu su fekkee yow pam maxtaar amoo dimension xol bi di gis yàlla fa innahu yaraaka yàllaa ngi lay gis nitu yàlla yi firee ko neneen ni déedéet an taabudallaha da ngay jaamu yàlla ka ënnaka taraahu ba mel ni yow yaa ngi gis yàlla ci sa bëtu xol ndax Maodo wax na walaw laa sukuunul aalamiina li gayrihi raaw iyaanan wal ilaahu xaribo alaaji Malik nee na su dul woon nit ñi jox gi ñuy jox cëru yàlla keneen kon ñoom ñëpp saa yu ñu xëyee seen butu seen bëti xol yi ñu ubbit ñu jàkkaarloog jàlle jalaaluhu wa azza abu xanifata nee gis naa yàlla juróom-ñeent fukki yoon ak juróom-ñeent abu xanifata ci suma bëtu xol nee gis naa ko juróom-ñeent fukki yoon ak juróom-ñeent mu téeméeréelu yoon bi mu ni mu ni nit ñi bu ma ko gisee téeméeréelu yoon dana am lu ma ko laaj moom Abu Hanifata Seydina Ali xëy na saxaaba yëpp toog mu raaytu rabbi saxaaba yëpp jóg taxaw mu ni leen bi ay ni xal bii gis naa yàlla waaye maa ngi ko gisee sama bëtu xol yi Maodo ni walaw laa sukuunul aalamiina li xëyrihi raawu iyaanan wal ilaahu xaribu alaaji Malick nee na budul woon teg gi ñuy teg yàlla keneen ku dul yàlla te loolu xam ngeen bari na teg gi ñuy teg palaasu yàlla keneen ku dul yàlla su dul woon jox gi ñu jox cëru yàlla keneen ku dul yàlla su dul woon wóolu gi ñu wóoloo keneen ni ñu waroon wóoloo yàlla su dul woon gëm gi ñu gëm keneen ni ñu waroon gëmee yàlla su dul woon sëriñ si nekk ci seen kanam te waroon leen jël jébbal leen yàlla waaye ñu jébbal leen seen bopp su woon sëriñ si nekk ci seen kanam te waroon jël seen lépp jox yàlla subhaanahu wa taala waaye ñu jël seen lépp wan leen ni ñoom ñoo ko téyel seen bopp ñooy def di dindi Maodo nee na ay budul woon ak ñooñu ñu ko Maodo kon lu xew mu ni raawoo yaanan kon yéen ñi topp seen ginnaaw te ñu nekk seen kiiraay seen digganteeg seen boroom ngeen gis yàlla ci seen bëtu xol Maodo ne wal ilaahu xaribu yàlla ne Maodo nee na yàlla ku jege la la yàlla wax na ko nahnu min hablil warid man maa leen gën a jege buum yi téye seen xol ki la gën a jege si buum yi téye sa xol kay kon ko loo làmb moom la loo daj moom la moo fa nekk dara nekku fa والإله وخريبه بوربو جغلا توخال نكو بابم أي يون يون وخنا يون انتبه وإسا سألك إبادي عني فإني خريب بكين وخ إي ما عند ما عيني فإني خريب أجيب دعوة داين إذا داني problem دي كي موي فليؤمنوا بي نين مكم من كسي فليؤمنوا بي موي problem ولي سجيبو لي نين هو فليؤمنوا بي من مغم لول نك مو مو رار او مو رار فليؤمنوا بي گم يالا گم گو سن ويتش وتا گيس نغا ماك ني يالا يالا فايل شيخ تيجان شيخ تيجان مو جانغال شيخ محمد الغالي موكو جانغال لاخدري شيخ محمد الغالي بوم غيسي شيخ عمر شيخ عمر جيلات لخدري سي بوبم بور دالات كو سي شيخ محمد الغالي خم نغول تخ لي شيخ محمد الغالي جانغي سي سيدنا الشيخ تي سيدنا الشيخ دونتي امنا اي سيرين ينكو اسكانل واي سيرين بير بيكو جانغال موي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيانغما نيانغام شيخ محمد الغالي ما اك شيخ عمر مدني نينا اول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه نكو الشيخ تيجان دون سولي الشيخ محمد الغالي نون نكو الشيخ محمد الغالي دون سولي الشيخ عمر مدخ بات بوبرك أي فلن لنجدف أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه بس كنغم سو باخي لبي باخ وعي سنغم يالا سو يقو دارا دوت الباخ اسمو سو جيسي جين بالمك sëriñ si jàpp taalibe yi di leen manipuler mel ni ñuy seen yàlla lu leen neex loo liggéey jox ko lu mu wax nga ne fu mu la jëme nga jëm amolo choix te tane wala ci yàlla sa ngëm yàlla mo dess sa ngëm yàllaa des tax yonent bi waxone bala dara awalu maa yajibu loolu xadis la ala al mukallafi tasxiixu imanihi ngëm yàlla gi ni wër moo tax imaam malik waxoon ni man tasawafa mooy baat bi ñuy waxtaane tasawuf man tasawafa walam yatafaqa mu ni faqat tafasaq soo demee yow pam maxtaar dem sukk ci muxaddam bi ni ko may ma werd te jàng goo sa wàllu shariatu imaam malik nee na naafiq nga ñu ne ko malik ëpp naa wax lu tax mu ni bu sëriñ ba dee saay-saay boppam la lay jàngal parce que jàngoo goo dara boppam la lay jàngal du la jàngal yàlla soo jàngee yàlla nag ba xam yàlla soo gàndiwu ci sëriñ bu la sëriñ di bëggee teg ci boppam nga xam shariatu xam nga xam nga shariatu nga ne ko eh shariatu nanguwul li shariatu nanguwul li boo toogee si sëriñ tisbaar jëg jugul julli te ba tàkkusaan di waxtu muxtaar bi jugul julli te nga jàngoon ci sharia tisbaar fi mu tàmbalee ci muxtaar ak tàkkusaan fi mu tàmbale ci muxtaar ak ñoom ñaari seen ñaari muxtaar yi fi nu ànde ak seen déruur yi ba muxtaar yi di bëgg a jeex ngay dugg ci timis nga jàng ko ci chariatu nooy def da nga naan ñokket bàyyi fa sëriñ ba dem jàpp julli charia la soo jàngul nag da nga aar ah non comme sëriñ baa ngi ko di du ma jug jug sëriñ bi jugul julli may jug julli lu tax léegi julli ji moomale nga ko sëriñ bi loolu mooy awwalu maa yi jibu alal mukallafi tasxiihu imaanihi soo amee alal ju la mën yóbbu màkk si sëriñ demul fekk jàngoon nga yàlla ni aj màkk farata ci ku am am loo bàyyi sa njaboot wóolu sa wér yaram wóolu sa bàyyi sa njaboot ci jàmm wóolu yoon wóolu na nga fay nekke farataal naa ko ci yow sa sëriñ demul te am ko nga dem parce que yàlla ci jàng ne soo jàngu Chahida yi sëriñ bi demul ma dem ii xalaatuma ko xalaatuma ko sax du ma dem loolu moo tax awwalu maa yajibu alal mukallifi tasxiixu imaan lislaam nag nekk ci al islaamu wal imaanu léegi ixsaan ixsaan mooy ngay jaamu yàlla ba mel ni yaa ko gis mag ñi ni déedéet ngay jaamu yàlla ka annaka mu mel ni ki yow taraawu yaa ngi gis yàlla mun fa in lam takun soo nekkatul yow Pape Makhtar taraawu rek nga gis yàlla te nga mag ni de fa in lam soo nekkatul yow Pape Makhtar rek taraawu da ngay gis jëmmi yàlla ci ci sa xol da yëg yàlla ci sa xol da am yàlla ci sa xol fa in lam soo nekkatul an taabudallah nga jaamu yàlla ka annaka bu mel ni ki yow Pape Makhtar Sylla yaa ngi gis yàlla fa in lam soo nekkatul moom su yégée ni Pape amul yàlla rek am lu tax yàllaa ngi bind Pape Makhtar ci gàttal ci leeru yonent bi ma indi mu gàtt ci leeru yonent bi duma fi nekk indi suma baay suma maam maamam day sore yooyu yëpp boo ko jëlee day jàll rek ci leeru yonent bi wa innahu is ara dalaaw na ci ëttana abaana min noorihi noori na bil alim moo tax Maodo lim bind yëpp tasawuf la lépp dégg rek baat boobu rek mbir boobu rek doyoon na ci xilaas wa innahu is ara dalaaw na ci ëttana abaana min noorihi noori na bil alimi mën nañ nekk ba dee te duñ ko dégg kenn du ko dégg kenn moo tax ñu xam yàlla alaaji Maalik Gay seen bàyyi dama wax leen ko tey ngeen dégg ko dafa xam yàlla ba pare xam ko ci xamin bu rafet xam ko ci xamen boo xam dañ ko togg ba mu ñor xam xamen boo xam ne amul tappale day gis fii Sénégal ku la ne xam naa yàlla te moo la gën a saay-saay ah xam yàlla te moo la gën a saay-saay jox jigéen ñi loxo te ni xam na yàlla day akolaat jigéen ñi te ni xam na yàlla ah? lu xew lu juunu mën a ci biir day tëdd taalibe yu jigéen ñi du ko bés te mu xam na yàlla kooku fan la xamee yàlla xam yàlla day dolli nit ki ragal yàlla yàlla noo ko gën a di ko gën a ragal waaw yàlla noo ko gën a di ko gën a ragal noo ko gën a di ko gën a ñeme moom yàlla subhaanahu wa taala xale bi dafa génn ci kër baayam di doxantu perantal bu ndaw la génn ci tóokóor bi ci ginnaaw kër gi fekk gaynde gu tëdd ak jabaram xale bi ñëw fekk gaynde gu góor gi mu yéeg ci kaw gaynde gu góor gi moom xale bu ndaw bi téye ci cëq mi di xëcc naan ko ali mbaam ali mbaam gaynde gi góor gaa ngi tëdd rek boof gaynde gu jigéen gi jekk ba yàgg mu xool gaynde gu góor gi ni ko meen di jaay xale bi doo ko defal affaire mu ne ko déedéet moo ko def dara mu ne ko kii da lay ñàkkal fayda de mu ne ko du ma ko def dara kii xaw ma bàyyam moo ma xam wala maamam bi jur baayam moo ma xam ni tuuti baayu xale bi laaj yaayu xale bi ana xale bi mu ne ko jaar na fii de léegi xam naa sorewul baayu xale bi génn di topp tànku xale bi sàmba ba dem ci tóokóor bi jàkkaarloog ñaari gaynde yi seen doom jàng ca kaw gaynde ga téye ci cëq mi naan ko ali mbaam baay bi taxaw di arrière di arrière gaynde gu góor gi ni gaynde gu jigéen gi lu ma la waxoon kee moo ma xam kee mooy baayam ku sa baay ragal boo ko ñemee danga koo xamut nee nag muy arrière ba dugg ci kër gi di arrière ba dugg ci néegu yaayu xale bi di arrière ba daanu ci biir ndaali toj ndaali te yëgu ko gaynde gi jóg fëggatu wàccee xale bi xale bi wàcc mu dugg gott bi àll bi moog jabaram gaynde gu jigéen gi ni ko demal doom danga maa xamul sa baayam a xam waaye xam naa yàlla ak ni yàlla mel nga xam ko ba pare yow fu ñu fekk yaa ngi ci loo xam ne ñi xamul yàlla néeguñu koo def ñemewuñ koo def kon xamoo yàlla ah kon xamoo yàlla kon tasawuf mooy al ihsaan fi al ibaada sa jaamu yàlla day rafet day rafet ku gis ni ngay jaamoo yàlla day xam ne bokkoo Pam Maxtaar ni muy jaamoo yàlla parce que da nga xam wa zuhdu fi dunia da ngay dëddu àdduna soo amee soo xamee yàlla ci walu te soo jaaree ci tasa bëggé jaar ci tasawuf pour xam yàlla da ngay dëddu aduna wa fi siyada da ngay nek sang wal jugdu fi taskiyati nufuusi da ngay gor góorlu pour selal sa bakkan li Buseyri yi waxoon man li bi raddi jimaah min gawaayatiha kama yurad jimaah al ghayl bi lujumi da ngay góorgóorlu pour bakkan bi sell ndax inna nafsa la ëmmaaratum bi suu'i bakkan boo ko toppee mu jor la ci pax ngay góorgóorlu sellal sa bakkan lu mu bëgg nga bañ lu mu bëgg nga bañ bu boo ba mujj gi bakkan bi dootul bëgg yaay bëgg te boo ko yoree ci noonu yow doo bëgg lu dul lu baax doo bañ lu dul lu bon nee na nga sellal sa bakkan ci ngis ngistal sellal sa bakkan ci iñaan sellal sa bakkan ci bañ te yàlla taxul sellal sa bakkan ci lépp loo xam ne dafay jax-jaxle sa xol sa digganteeg sa borom ak sa digganteeg yonent ak sa digganteeg jaamu yàlla mu ni lii fa haadihi xaqiqatu tasawuf mu ni tasawuf bi ñuy wax lii mooy tasawuf mu ni nag walaysa fi raxs tasawuf nekkul ci pecc wala tatarrufin wala tëgg sigare wu kontaan déedéet léegi muy gis ay tariqa ay daayira yoo xam ne tey bu nu xewlee daayira bu nu lee daayira dañuy tëgg di fecc dañuy tëgg di fecc te ñu kat ñoom ñoo ñu koy def ay muxaddamu tijaan lañu mais loolu tijaan mosu ko moom yéen tamit tëgg ci tariqa tijaan kooku amul. الرقص ها والدف لولو ممنوع في الطريقة التجانية تق أكفيتش فيتش لولو دنكو تاريخ طريقة تجان دنكو تاريخ صاحب الدين واي الطريقة بما موي فيك صاح لولو الدين ماي مو مخنكو ngir bañ nga jégé frontière yi yalla waxoon من fa hadhihi tasawuf fa التسوف haqiqatu tasawuf muni li moy deug وليس في الرقص لان التصوف ناكل فتش ولا تطرف واللي سيغري لكن نك بعد التصوف لا ينيو واخلاكو تدوغ نك في طريقه تيجان اك تصوف بشيخو تيجاني جانغالي اك تصوف بشيخو تيجاني جانغالي من حروفه اربعه فلتعرف فسرها أولو النها والمعرفة نينا حرف تصوف نينتي حرف لا تالا أكصاد أكواو أكفاح مني نينتي حرف يويو بروم يو سلي نيجيجو تي معرفة بالله نيخوت تي والو تصوف أخم يالا نيو نيوكو فيري حروفه أربعة فالتعرفة فسرها أولو النهى والمعرفة nee na xaraf yi ñeent la nee na boroom xel yu ak ñi nga xam ñoo xam yàlla seen borom subhaanahu wa taala in nañ ko firee mu ni li tawbati wa saadun li safaa'i waawun wila waawun waawun wilaayatun wa lil futuuxi اكتب ظاهرا وباطنا يا طالب والخلب صف دائما يا راقب وعمر الأوقات بالأذكار ونجيا مولاك في الأصحار affaire baa ngoog ah nee na boo bëggee def tasawuf nee na ta un li tawbati nee na taagi li tawbati da ngay tuub say bàkkaar yépp yàlla boo bëggee jëm ci moom te taq doo dugg da ngay tuub ba set wecc say bàkkaar taa un li tawbati taa gi mooy tawbatu mooy tuub waaye léegi bu ñu la ne yow tasawuf balaa ngay dugg premier pas bi nga njëkk a teg teg mooy tuub yow nga jëm ci tasawuf di tax kon kay doo dugg doo dem fecc bàkkaar la tëgg bàkkaar la wa ma kaana salaatuhum inda al bayt mukaan wa tasdiyatan alquran wax na ko nee na yonent gaa yi seen julli yi ñuy wax ni dañ koy julli du dara lu dul tëgg ak fecc julli gu am tëgg ak fecc yàlla nanguwul jaamu gu am tëgg ak fecc yàlla nanguwul wa ma kaana salaatuhum inda al beyt illa mukaan wa tasdiyatan tëgg fecc jarul may wax tàccu ndax fu tëgg am fecc am tàccu ñëw ah ñooy ànd tëgg su amee fecc am su fecc amee tàccu am moom ko jarul tàccu nga koy wax parce que fu tëgg am fecc am te fi fecc am tàccu am ngay gis fecckat bi bu feccee tuuti tàccuwul leen ko sax mu taxaw ni waaw bi ngeen tàccu tàccu leen ma <laughs> xam nga tàccu leen ma boo ko waxee rek riya ñëw na ngistal tàccu leen ma am na loo bëgg mu ne taa un li tawbati taa gi nekk ci tasawuf ta sa wu fu taa gi mooy taa un li tawbati taa gi da tuub ku bëgg dem ci yàlla faaw nga tuub moo tax yonent bi nga xam ne musul jóge ci yàlla wax ni bés bu nekk danaa tuub juróom-ñaar fukki yoon ba téeméer gis nga bari gi rek la jublu foofu bari gi tuub gi bari lu mu koy def ndax benn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam labal na benn xeet wi yëpp ak xeet yu njëkk yëpp mu ne dana ko def juróom-ñaar fukki yoon ba téeméer te benn yonent bi bokkul ak sunu benn ci yàlla ah, kon lu foofu tudd gi tudd juróom-ñaar fukk wala téeméer foofu bari gi la lay jàngal foofu taa un li tawbati te bàkkaar lu mu yaatu yaatu nag su ko borom tuubee ñu jéggal ko attaibu mina zanbi kaman la zanba lahu yàlla baax yàlla ne ki def bàkkaar ba yàgg mu buddeeku ca bàkkaar ya ñëw jonkoon ci sama bunt ni ma baal ma yàlla nee na balaa may wax ak moom dara dama naan ko baal naa la xam nga sàmba si bu ko ni tooñoon ñëw ni ko baal ma daan bu ko defati waaye baal naa la yàlla nag du la wax bu ko defati baal naa la daan la baal naa la bu ko defati moom du la wax ni bu ko defati de baal naa la daan la baal naa la bu ko defati xam nga bu ko defati baal naa la day day firnde ni boo ko defatee duma la baal yàlla nag danaan la baal naa la ba pare ni la bu ko defati ñu taa un li tawbati tuub nga mu ni wax saadun li safa nee na saad gi pour nga sellal sell sellal wa saadun li safa ni day sellal te sellal yàlla du tànn ku sellul soo tuubee sellal yàlla tànn la waawun wilaayatu soo tuubee sellal waaw wilaayati ñëw nga am wilaaya di gis lu gaa yi dul gis di saa safaa taa tuub saat gi nga sellal waaw wilaaya mooy nga am wilaayatu nga nekk wuliyu nga xam ne si mbir yëpp yàlla moo lay wax fi ngay jaar الله ولي الذين امنوا تي يالا كوم نيك س س كي س جيد يخرجهم من الظلمات الى النور يالا كوم نيك س جيد ها دا فلي جيني سي لو بون يوبلي سي لو باخ دا فلي جيني سي لندم يوبلي سي لير دا فلي جيني سي جافن جافن يوبلي سي يومب يومب يخرجهم من الظلمات الى النور موني واو ان موني ولي الفتوح فاعون فاجي مجي تصوف داغي ام فتح Le ñëw moo gis nga eh, jaamu yalla moy indi lepp moy indi koomu aduna moy indi ngërëmu àllaaxira jaamu yalla moy indi wiru aduna jaamu yalla moy indi dal jaamu indi xol bu stable ala bi jaamu koy def da gis la su bu rafet di dox dox di xeñ parfum bu neex te yorul dërëm nga yaakaar ay milliards la yor fekk fifteen yoru ko fifteen su añee du reer su nde su reeree du ndékki noonu la koy doxale waaye nag soo ko gisee rek yaram bi day rafet Seydina alil doom yi dañ ko doon wax ne ko yéeg ci biir bi Xasan ak xasanu di tëb di bonde naan ko maa fi batnika yaa abi bàyyi lan moo nekk sa biir bi biir bi dafa rëy te leer kanam gi leer مني ما في بطني الا العلم والنور بير بدار لير لو كل دول نيار خم خم اك ليرو جامو يالا شيخنا ليرو جامو يالا صحابه دي نغدا سيدنا علي مولم صحابه دي ني غنا نياك تيغا بوك مي كين اوب لا يارم كين غنو لا ناي كين غنو لا لير كين غنو لا رفات خل كين اوب لا خم خم كين اوب لا فصاحه كين دخو لا بند كين غنو لا دال سيدنا علي تي امو دارا لو تخ مون لين امنا كاي ñini ko loo am mu ne alxanaatu mu ne alxanaatu alxanaatu maalun laa yanfadu alxanaatu kanzun laa yablaa mu leen dama doylu doylu gi ma doylu ak ni may jaamoo yàlla mooy détermine Makka ak Medine Saam ak li ko wër maay borom te dépense su fakat nekk ko fi moo tax mu ni waaw wilaaya soo ko defee rek fa walil futuuxi faawun nga am faa mu ni nag tub zahiran wa baatinan yaa taalibu wal xalbu safi daayiman yaa raaxibu mu ni tub taib tub zahiran wa baatinan tuubal ci li nëbb ak li feeñ nit ki am na bàkkaar yoo xam ne ñëpp xameel nañ ko ko waaye am na bàkkaar yoo xam ne kenn xamu ko ci yow mu ni balaa ngay tuub yi nga xamel tuubal yi nga xameegul ba noppi waaw balaa ngay tuub bàkkaar yi nit xam ci yaw yi nu xamul ci yow tuub ko ba noppi xanaa xamoo bàkkaar yi yi nu xam ci yow nit ñi évancel nan la ko bu yàgg te yëgoo ko waaw bàkkaar bi nga def nit ñi xam ko eh, parce que ñu ngi koy wax guddeeg bëccëg yàlla di la ko évancel di leen bindal bi nu xamul nag mu nekk ci yow nga ni ñu gëg moom tuubal boobu gaaw ci yàlla ni ko bii kenn xamu ko maag yow la yàlla baal ma ko yàlla baal la bee nga xam nga mu jékku tuub maanaam boo tey tey ci àjjuma ji boo ne woon tey dinaa tuub tuuba yi ñu xamul ba pare tuub yi ñu xam bul passé tey nag ndax tuub kenn waru ko yéexe walaa yu aqiru tawbata jàng nañ ko ci téere bu rëy ba muy lax dari walaa yu aqiru tawbata bu kenn yéexe tuub moo xam góor ak jigéen boo waxee ni bul wax ni hatta yahdiyani laa damay toog ba yàlla wan ma yoonu njub déedéet jéem ko wut jéem ko gëstu jéem ko xeeñtu yàlla wan na ko ndax kenn mënul jubal sa bopp yàllaa mën a jubal yàlla moomu nag xentu gi nga koy xentu bëgg jub ñaan la ñaanal pour pour yàlla jubal ñu ñaanal parce que boo tuubee rek wax nga yàlla ihdina siraatal mustaqima saa yow tuubee soo ko yëgee soo wax nga yàlla ihdina siraatal mustaqima ah wax nga ko yàlla ne ko ihdina siraatal mustaqim yàlla wan ma yoonu waay yoonu jub bi siraat alladina anamta alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhadaai wa saalihina wa xasana ulaika rafiqa yàlla tegal ma sama tànk ci yoon woowu moo tax mu ne tub zahiran wa batina na nga tuub ci lu feeñ tuub ci lu nëbbu ma ni sooy tuub ay bàkkaar tuubal bàkkaar yi ni ñi xamagul ci yow ba pare soo gaam di tuub yi nu xam ci yow ndax yi nu xam ci yow gaa yaa ngi koy waxtaane te ku ci tudd wàll jël sawal wàll bàkkaaru jàmbur saa yoo ko tuddee am nga sa léegi nag soo amee sa wàll waaye dañ koy bindal tiyaaba moo tax mu ne tub zahiran wa baatina yow mi bëgg def tasawuf tuubal bakkaar yi feeñ ak yi nëbbu yaa taalibu yow mi nga xam ni yaay ki nga xam ni yaa sàkku jëm ci yàlla subhaanahu wa taala léegi tuub nga ba pare dafatoo dara ci yi commencé na bàyyi bakkaar yi defatu ko mu ni wal xel bu saf léegi na nga jubal direct ci xol bi السكون والقلب ثقل صف نانكو سل دائما تزور يا راغب يومي يا خمني يا خمم تصوف يا راغب يومي خمم يومي بق يالا يا راغب يومي بق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا راغب يومي بق سيد الشيخ احمد التجاني الخلفاء موني بو توبي تي لنبو توب تي لفين سلا سخول موني ليغي خم نغ لاي ديف كوماسي ليغي نك commencé dundal say waxtu bil askaari ci tudd yàlla wa ammiril askaar wa ammiril aw xaata bil askaari waxtu yi na nga ko dundal ci tudd yàlla waxtu dafa cher moo tax mam Mansour waxoon ni waxtu ak jaasee yam da ngay dagg rek wala mu dagg la lan mooy da ngay dagg wala mu dagg la waxtu wi su jotee defal li nga war a def ci waxtu wi soo ko deful moom waxtu wi du la xaar day dem yoonam soo ci defee li nga war a def nag dagg nga waxtu wi parce que def nga ci li nga ci war a def soo ci deful li nga war a def ba waxtu wi jàll waxtu wi dagg na la moo tax Maodo Seydi El Hadji Malick sama sëriñ ba waxoon ni laqad daa umru saatin minu tushtara bi mulli samaai wal ardi ayati dayaati nee na benn waaye dina toog benn waxtu benn une heure de temps wala benn trente minutes wala benn dix minutes di wax ay mbiccoo mbaalu ay wax yu ñàkk fayda gaaram palaasu fii toog wax loo warul wax fii nekk ci loo warul nekk fii ba une heure de temps jàll alaaji Malick nee na moo ne une heure de temps boobu soo yeesaloon njàpp dóor ñaari rakka téy sa kurus moo xam astaghfirullah ngay wax moo xam subhanallah ngay wax moo xam laa ilaha illallah ma ngay wax moo xam laa hawla wala quwwata ngay wax illa billahi aliyil azim loolu ngay wax yàlla jóoral la ci yiw woo xam ne suñ ko tegee ci suuf mu laal asamaan لقد عمر ساعة من تشترى بمن السماء والأرض آيات دياتي جسم نيت فوتو لو دنگور تدو يالا خولا ميم خالي الجورناليست بي توك ني خولا توك تي ماشين بي سامبا دي خول انترنت بي تيم جورنوي دي دي بيند بور بريباري جورنالام ولا ريفي دي بريسام خال ني مو نيك تيا لولا بيند بي مو نيك تيا لول اك لام مي خول بي توجور ني فوغلانتي يالا yenn saay boo bindee ba sonn sax yëkkatil këyit yi ni alhamdulillahi rabbil alamin tudd nga yàlla tiyaaba la moo tax moom mu ni wa ammaril awxaata na nga dundal sa waxtu yi bil azkaar yi ci tudd yàlla soo toogee ba jóg sax waa laa ilaaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سيد قوته وقال بسم الله الرحمن الرحيم سأعطي بكم على سيد ديبار وقال سبحان الذي سقى لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون سواتي وخل وقال الحمد لله رب العالمين نيك نمي دفرك من نتو ديال هاي اللي جنك واخ واخ واخ يوم بوسور رك ها وخلقي موسرك متغمني وعمل الأوقات بالأزكاة ونديا مولاك بالأصحى في الأصحار نعم من في بيدي اللي يلا سبرم كان وقت نجل كم قلت لكم إني باتو دي على سامبا يلا نينا شك فجر لما يوبا أسمان بينيل مو بي أسمان بمجبي نكفا دي وخلي أنا كان مويتوب ما بالكو أنا كان مويتوب ما جيجلكو أنا كان مو ما ما مايكو ana kan mooy déeyaale ak man ma déglu ko déeyaale xam nga ko ci wolof mooy wax ndànk maanaam déeyaale mooy ki ngay waxal noppam mi ngi sa booru gémmiñ ngay wax loolu mooy déeyaale wa najjiyan mawlaak li tax na fii baatu wa najjiyan moom Thierno booba yàlla dafa ñëw ba asamaan beneen dafa jege doomu aadama yi te yàlla même bu nekkoon ci asamaan bu mujj xotti kiiraaya nekk ba fa mujj ca moom ndega mujj am na ca moom mu nekk fa soo ne ngunun mu dégg ko ndax moom wax na ko ci alquran nee na yàlla wa indahu mafatihu lxaybi laa yaclamuha illa hu wa yaclamu ma fi lbarri walbaxri wa ma tasqutu min waraqatin illa yaclamuha wala xabatin fi zulumaati alard wala ratbin wala yaabisin illa fi kitaabin mubinin kooku soo yuuxu dégg na soo déyaale yi dégg na mu ne wa naajiyan na nga déyaaleeg mawlaaka sa borom fil asxaari ci njël mu ni faaxilu zi yanaalu min mawlaahu wilayatan wal fatxa fi masaahu mu ni mu ni xam ni daa def lii nee na kooku mu ni kooku ni kooku dana am wilaaya am fatxu dana am kooku dana am wilaaya am fatxu dana am wilaaya am fatxu faaxilu zi yanaalu min mawlaaw wilaayatan wal fatxu fi masxaaw mu ne ki def lii dana am wilaayatu al wilaayatu ah soo tuubee sellal ah da nga am wilaaya am fatxu def ci tuub ak sellal hunaalika al walaayatu lillah ah soo ko defee rek am wilaaya kenn mënu laa tee am wilaaya wilaaya dañ koy jënd barke nag mën nga ne yàcc mu dal sa kaw ndax sa baay mën naa nekk sëriñ sa maam nekk sëriñ nga am sant wa ñu jóge fii wala ñu nekk fi nga nekk sëriñ loolu moom ñun ñi may déglu xam ngeen xam ngeen fii Sénégal am na sant yoo xam ne soo ko fi santee rek sëriñ la sant bi rek suñ ko waxee rek ñëpp di nga xam ne yéen seen sant ay santu sëriñ lañu waaw yéen ay sëriñ ngeen nga leen di jox hadiya ah kooku barke la waaye wilaayatul bi jóge ci yàlla kooku liggéey rek ci yàlla Ibrahima ba mu ne yàlla dama bëggoon ni ma defee yonent ak li nga ma may sama sët yeeg ñëpp nga def leen comme man ñu am village yàlla ni ko loolu loolu du sama programme de man du ma doxee noonu de loolu la ko mu ne ko man du doxee noonu Ibrahima mu ne nooy doxee mu ne ko suñu jaaree fi nga jaar def li nga def defal ma li nga ma defal bëgg ma li ma bëggee ma jaral leen li ma la jaral ma defal leen loolu wa min zuriyati yàlla teraanga yi bu mu yem ci man de wa min zuriyati doom yi sëgg mu ne ko eh man doxewu ma noonu de laa yanaalu ahdi zaalimina ma ne ko mu ne ko seen affaire yooyu bu ma ci dugal de man doxewu ma noonu man yàlla de laa yanaalu ahdi zaalimina sa doom yi bu ñu nekkee kàccoor dama leen di classé ci sa kàccoor ya su ñu nekkee ñu baax ma classé leen ca ñu baax ña fii ne boo nekkee doomu sëriñ yaa ngi ci kaw jeex na tut man tut doomu sëriñ sa baay am na santu sëriñ sa yaay am na santu sëriñ wala sa maam rek sëriñ nga yaa xam jàngoo <laughs> na ma yàlla baal léegi suñu sëriñ sax france lañ gën a jàng nañoo xam si dëgg français la ñuy jàng ba doyle génn sol seen garaam bu toog nekk sëriñ par force ah man doo nekk sama sëriñ ku jàngul alquran man jàngoo mbindu Seydil Hadj Malick jàngoo tariq mbindu Cheikhu Tidiane jàngoo xadis yonent bi ak ku jur man doo nekk sama sëriñ man Pape Makhtar mukk man kay sama sëriñ day jàng kay sëriñ bi la jur nga nekk sama sëriñ pour lan foo ko teg foo ko teg ah mu kay day yomb di te nangu leen doom président nekk président ngeen baal ma loolu daanaka Sénégal gi indi na fay coow ah, président bi fi jóge daa bëggoon doom nekk coow coow coow guddi waaw léegi nag nangu leen ko ci àdduna bëgg ko nangu ci àllaaxira ah waa ji moom maamam moo fi nekkoon bàyyi na fi nekkoon moom jàngul xamul atte yi deful dara te bàyyam mi fi màggat na wala bàyyam dem na rek moom moo fi nekk gars yi topp ko pour lan ci wàllu yàlla man de nanguwuma ko man de ku jàngul doo nekk sama sëriñ ak ku la jur ak foo mënti nekk jàng rek doon sëriñu Pape Makhtar sell doon sëriñu Pape Makhtar jaamu yàlla Pape Makhtar doon sëriñu Pape rek man loolu la nit nekk sama sëriñ waaye s bii la ma jox sëriñ bi ñaari loxo jox la ñaari loxo foo ko teg benn loxo laa lay jox wala du ma la nuyu sax pour lan tax mu ni faaxilu zi la wax ah waxul ku yàccaan daf ni faaxilu zi ku def yii yanaalu min mawlaahu wilaayata wal fatxa fi masaaw léegi nag ma ngay ñaan yàlla yàlla nangul ñu mu ni wafaqana ilahuna ala dawami سلوك nahji المجتبى خير الأنام يلا يلا ما nu سخ ñun ñu takkoo suubu yoonu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ñu yàlla may ci lu sax ñu takkoo suubu yoonu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàgg na koo ñaan wax na ko feneen ni yàlla yàlla na ñu def mustamsikina sunnati rasuli wa muhtadina sahbahu alfuhuli loolu Ceerno Xaamidu moo ko wax ak lii ma doon wax ci tasawuf مستمسكين سنة الرسول يلا يلا يدف مني سيبو يونو سنة ينتبه يعني ومختجين صاحبه الفحول نروي يونو قال باخي وينك في تصوف من بجاء الشيخ التجاني أحمد عليه رضوان الإله الأمجد في من مستعملين ورد خير الأولياء تجاننا مند كل أولياء لبك نرو يا رب صل دائما وسلم على النبي المصطفى المكرمين وآله وصحبه والمحسنين اتبعيننا يا خير المرسلين الأمة التصوف تصوف بوبنك شيخ تجاني الشريف دفا جار فكان نجار تكن موسو فجار تكن دوت فجار واو شيخ تجان دفا جار تصوف فكان موسو الجار te kenn dootu fa jaar te kenn munutu fa jaar wax na lu mel noonu Cheikh Mouhamadal Ghali al Ghali ni ko ah sang yàlla daf ko mënul mu ne ah Samdal Ghali mu ne la béy ko mu ne yàlla da munul bindu ko gën yonent bi Cheikh al Ghali ni ko ah kay mu ne ko est ce xam nga suma la laajo ndax yàlla mën na bind ku gën yonent bi nga ni mënu ko rek def nga kufru weddi nga yàlla ndax inna allah ala kulli shay'in qadir منكو خمنا إني يلا منو بندكو جن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مني واي إسكت أنا كده مني ديدت مني لتر تو كده مني كده فكان نمول شيء أزل منكو مانت يلا نمول لولو شيء أزل point جهنا تك جسنا كي يلا وخلو ولا كي يلا دفل شربي ولا كي يلا خمل شربي كشوف بني بني ويدوكو ويري ويري ودغ ديم بوكاي واخ سي والو اي فرض الجانا دي واخ با يادو نكاي لاج fu mu doon defee conférence ci bitim réew gars yi di ko laaj muy wax ba yàgg mu ne ma ma dégg ko mu ne kii ma kii ma daan lu ma doon waxati sax man gis nga li ngay wax nga xamut nit suy wax lu mu xamut doo dem nit sooy wax dangay wax loo maîtriser loo xam loo jàng waaye dégg baatu fardul jaame rek nga bëgg wax la waxaat nañ ko itam ndaxam mu jéggit dana amaat gannaaw ki mu doon waxtaane mu ni wóoru ko loolu yeneen ci bee ko wax yeneen ci bi nee ni téeméeri at yu nekk yàlla dana indi mu jëddit kooku waxu sayduna muhammad la sallallahu alayhi wa sallam téeméeri at yu nekk yàlla dana indi mu jëddit koo xam ne dafay beesalaat diine yàlla ji ila yomina hada loolu du fi jóge ila an yarisa al wa man alayha booba tax la yeneen bi ko te yeneen bi lu mu wax day ñëw doon yeneen bi lu mu wax dëgg la de doo ko wax de déedéet ndax yeneen bi xamul lu dul dëgg yeneen bi doo wax lu mu wax dëgg la de da nga naan ndax ku dul lu dul dëgg kooku kenn du ko wax waxam dëgg la déedéet yeneen bi lu mu wax gis nga saddaxta ala ma xulte fi awdi diinina gariban kama fi lbadi ya xayra rahimi bi ko alaaji Malik waxee bi mu koy firi dafa ni saddaxta ala ma xulta yegsi yegsi nañu ci li nga waxoon ala awdi diininaa gariban ni diine dana dellu ci du tumuranke comme nga waxoon ni ca xadis ba bada a diinu gariba fa sa yahuudu gariba kama bada a gariba fa tuuba lil xurabaa yi ni ko yonent bi waxoon alaaji maalik xadis boobu la wax wax yonent bi ñëw na wax ma la dëggal wax yonent bi de ndax wax yonent bi dëgg dëgg la yonent bi dëggu kenn mënatu koo dëggal kenn mënatu koo dëggal da nga naan saddaxta ala ma xulta wax yonent bi dañ koy gëm ndax yonent bi lu mu wax dëgg la sa daxta ala ma xulta Maodo dafa ni alaaji Malik li nga waxoon yegg si nañ ci daxta ala ma xulta fii awdi diinina ni diine dana dellu gariban di tumuranke kama bada gariba comme ni mu delluwaatoon di tumuranke fa tuuba lil xuraba kon texe ñeel na ñi nga xam ni ñoo teg seen tànk fa ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam teg foon Cheikh Tidiane nag ci wàllu tasawuf mu jaar fa kenn jaarul fu kenn jaarul mu jaar fa fu kenn jaarul Cheikh Tidiane jaar fa wax naa la ba may ubbi amoon na ay yoon yu mu jàppoon amoon na yu mu daan zikkar moom Cheikh mais keroog bi ko maamam feeñoo ci Abu Samxoon yoor yooru alxamis kom démb Seydina Cheikh julli yor-yor ba pare muy jamono boo xam ne dafa xaw a sedd mu génn ci jëm ci jant bi di tàllal tànkam ya ndax koo xam ne foo ko fekk ma ngay toog di jaamu yàlla muy tàllal tànk yi ci yor-yor bi ni mu génn moo tax mbokk taalibe yi maa di wax ni julli ñëpp laa koy wax rawatina taalibe tijaan yi na ngeen fonk julli yor-yor. ngeen ko fonk ndax seen sëriñ maqaama bi gën a rëy mooy dajeeg Seydina Muhammad bi mu koy def dafa julli yoor yoor di doxantu sang bi ñu tëll yegg si ci kawam da ngeen fonk julli yoor yoor maa ngi dégg sax ngeen naan xale bi julli yoor yoor ma ne xale bu dul julli yoor yoor li nga bàyyi tisbaar gi de julli yoor yoor yeneen ci bi nee na duha xayrun min addunia wa ma fiha julli yoor yoor moo gën àdduna ak li ci biiram ñaari rakka kott baax na ñeent baax na juróom benn baax falayam du ko soo neexee nga dóor ñaar soo neexee nga dóor ñeent soo neexee nga dóor juróom-benn soo neexee nga dóor juróom-ñett ci yor-yor boo demee ci benn téere bu tudd xasinatul asraar dafa ne ñeent ñi am na doole rakka bu njëkk bi nga tari wa shamsi bu ñaareel bi nga tari wa leyli taaye sëlmal yeneen ñaar rakkaa bu njëkk bi nga tari wa duha bu ñaareel bi nga tari alam nashara te ñeenti saar yi mu kimile wax ko benn bu nekk rasulullah wax na ci loo xam ne jar na ko xoola alam nasara rek laa lay leer yonent bi nee na alam nasara ku ko jàng benn yoon da dafa mel ne danga ma fekk ci problème man yonent bi nga génnee ma ci problème bi fekk ci njàqare man rasulullah nga génnee ma ci njàqare bi ku ko jàng benn yoon alam nasara benn rek nga jàng ko ko mu julli yoor yoor ba pare génn di tàllal tànk yi li xale yi wax bain de soleil benn ah. bain de soleil noonu la mooy jël ceeñeer bi noonu la doon def di jël ceeñeeru e, e, e, jant bi ni mu génnee di jël ceeñeeru jant bi bëgg ñaari tànk boot loxoom yu tedd ya mu seen ku tedd ki muy Seyduna Muhammad yenent baa ngi jóge fële ci peelu ci fas wi di temp jëm ci Seydina Cheikh mu xool ko ak taar bi ak jëmm ju rafet ji ak lim koy sori yëpp xet gi muy xeeñ moom rasulullahi mu xam ni kii mooy maamam sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayidina cheikh dëpp fan la jëm néegam lu tax bëggul yonent bi sallallahu alayhi wa ko ci biti bëggul recevoir yonent bi ci biti daf ko bëgg a recevoir ci biir néegam bi mu dëggee tànk yi waaye tànku yonent bi sallallahu alayhi wa gën a gaaw tànku Seydi Cheikh Ahmed Tidiane moo tax kenn du Alaaji Malick waxoon nañ ko démb Maodo nee na woon yonent bi ku mu doxandool tànkam bi mooy gën a gaaw sa tànk koo ànd ak moom di dox da ngay mel na xale bu ndaw bu ànd ci ginnaaw baayam su baayam dee waaxu muy dox su baayam dee waaxu daw moom xale ba di ñukki ñukki nee na Sidina Cheikh dëgg tànk yu dëgër tànk yonent bi gën gaaw tànkam yonent bi dab ko ba taxaw ci kanamam balaa muy àgg ci buntu néeg bi Sidina Cheikh bañ yonent bi toog ci suuf. ndax haysun taa majlisun kaanal julusu lahu fu jataay yam fa lay toog waaye fu mu fekk nit tamit foofu lay toog ndax moom fi nuy toog même bu laabul suuf si dana laab balaab mawla balaa Seydina Muhammad di toog ndax moo tax laaba laab ki tax laaba laab lu laabul du la ko jege moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Cheikh bu tedd ba lalal ko maamam rasulullahi mu toog yonent bi toog mu jàkkaarloog moom لمن جك وخشخت جان أنت ولدي إسكي يو سما دومغا أنت ولدي يو سما دومغا حقا تدق ياريون ولدي بني بموي مالي جور كي دارت بني بسو روح ماكو جورات كي والو يالا نيت دانا نيك سا باي تدولو مانا دفل تربية لوري لكو بغا وخ نيت دانا نيك سا باي بلي جور تدولو مانا دفل تربية يو ماي سا باي مانا دفل تربية أنا مربيك وأنت ولدي وشيخك الأبر كل مسندي فادرك جميع ما به أغاص الشيخ شيخ خمناني بقنقما شيخ خمناني بقنقا يا الله صبرهم واي فين يجار سرو دفا أب سين روح موتاق مني لا جوخ لينغ بق لينغ بق كان لك من جوخ موي من هاو شيخ تجان لينغ بق كان موكو من جوخ موي روحو ينتبي صلى الله عليه وسلم moo attan ruuhu Cheikh beneen ruuhu attan ruuhu Cheikh Tidiane ruuhu bu ne ruuhu yonent bi sallallahu alayhi ci gannaaw Cheikh tijan ngay bootu waaw ruuhu lu am ruuhu laa wax ci wilaayatu bu dul yonent bi ci gannaaw ruuhu Cheikh Tidiane ngay bootu. mu ko fàttali jami ana bi axasa Cheikh Tidiane mu ni la béy ko mu ni loo jàppoon bàyyi ko Cheikh Tidiane bàyyi lépp mu jox ko tariqa bi gën ci tariqa yi. muy at tariqatu tijaniya su ma nee tarixa bi gën ci tarixa yi déglu ma bum la jaaxal mooy tarixa bi nga xam ni soo ko jàppee nang ñemeetoo bàyyi julli tarixa boo xam ni soo ko jàppee ñemeetoo bàyyi woor tarixa bi nga xam ni soo ko jàppee ñemeetoo bàyyi joxe azak tariqa bi nga xam ne soo ko bàyyee ñemee too bañ a dem màkk tariqa bi nga xam ne soo ko jàppee soo ko jàppee ñemee too bañ a wird ñemee too bañ a wasifa ñemee too bañ a xadratul juma tariqa bi nga xamni soko jappi ko jàppee ñimitu jëw tu xas gor tu ñaanu kenn tu def dara lu ñuy tuddee wasmatu ar rasail yeb dañ ci def atakhalli ndax tariqa bi atakhalli la te atakhalli bala muy am atakhalli muy njëkk bala yëre sangu sangu ba set sañse Cheikh Tidiane nak yo ma jox ko tariqa bi waxul kaay leen de maa ngi ak tariqa bi de waxul yàlla defal na ma lu mu defalul kenn de waxul yàlla may na ma lu mu mayul kenn de waxul Seydina Muhammad teg na sama loxo lu mu tegul kenn yooyu waxu ko xam nga nu mu def dafa dem beru ca Zahra ba ca àllu Algérie ba dugg ca gorot ya mooy xeer yu mag ya commencé téye kurusam di dóor tariqaam mu neex lool mu ngi naan lii ah beneen affaire la nekk fa rek Maodo nee ba xëy يلين تبي صلى الله عليه وسلم فك كوفا نيكو شيخ مونيكو لا بايك مونيكو مبانا بون كو تالي سي كير دو بور بن بير مبانا مبانا موي كادير يو ماغي يلنتي بي نيكو شيخ مونيكو لا بايك مونيكو مبانا بون كو تالي سي كير امنا لو فا خيو دو بن بير دو واك دو بير وا كير غي رك موني مام لو بوغ واخ موني ليما لا جوخ دو بور يو كيسي نيت ني فينو بور جيم بور موي في نيت ني دوخ جيم مو جيمو تكولين باي ني من اي لبالب يو تال سفرة تي جامونو اي نويت ني داو سفرة ما بغ نك شيخ تيجان غا داو سما خيت وي شيخ موني لبيك موني داوال دوغاليل ما سما خيت وي نياري لا امون بن بي يالا موي فيك ماغي سي سين بير يالا دولين بوغال جيم جي دم سي جيل ني غيساتو دونت يا ماي غيس ني تاي بين بي فين ني استغفر الله duma len bugal te lima la jox astaghfirullah lañ koy ubbe ak salatu ala nabi ak la ilaha illallah kon cheikh way way cheikh Tidiane yow gemel fi nga dem dogalel ma ñi bëgg dem lak seen bop lolay tariqa Tidiane tariqa Tidiane ñi bëgg sànku ñooñu la cheikh Tidiane di dem dogalé delo len fa ñu war jëm moy aljanna Maodo ni wax na loolu la wax lolou lañ waxante amara nabiyu imamana bi ci nazili li ifadatil erlaaxi bil wérdil jëli alaaji Maalik ni yonent bi moo ni cheikh génnal cheikh génnul wootewul bëggul woon taalibe newul maay sëriñ bi newul maay nii yonent bee jàpp ci loxoom kott kott yëllu yëllu ba ci penc ma mu dij ko ci penc mi ni ko ko topp topp nga ma ku nekk taalibeem yaag sama saaba yee yem kooku yonent bee ko defal cheikh yonent koku yonenti bi moko defal cheikh tidiane amara nabiyu imamana بتنزل لإفادة الأخلاق بالورد الجلي فأجابه بمقاله السافي رضا فجزاء ربي بالجزاء الأجزلي ليتون تبي نانا يونين تبيني شيخ جنل جرين نتني تي ورد تيجان وينغ خامني بن ورد ملول نمام شيخ تونتو مامم تي تونتو مبو تيبا ci tontoom bu yar ba ci tontoom bu tegginu ko ni ko maam in kuntu baaban lin najaati iski maam man dey sa wax waaw rek la wax sa wax waaw la sant waaye dama bëggoon nga nga nga defal ma garanti ci génn bi mu ne ko loo bëgg garanti mu ne ko in kuntu baaban lin najaati su fekkee tariqa bi ku ko jenc ko jàpp mucc àdduna mucc àllaaxira mu ne ko ku ko jàpp mucc àdduna mucc àllaaxira kon tarixa baa ngoog Cheikh Tidiane ngoog ñu taxawani foofu bàyyi xaj Samba tuuti mu jox leen générique xaj Ndiaga Ndiaye ñu ñëw léegi ubbi leen ligne bi ci 88 628. man de yàlla dogal mu jaaxal na. waaye billaahi alladi laa ilaaha illaa na ma ci yoon. dëgg la. wasalaam. ñu ngi koy nuyu bu baax tubaarakallahu moom di ko ziyaar.

macha allah xol yi sedd na. Cissé Cissé Cissé. danañ yàlla fayal la Cheikh Ahmed Tidiane. Cherif radiyallahu taala anhu. danañ yàlla fayal suñu sang bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam. amiin yaa rabbi kontaan nañ loolu daal macha allah. waaw di ziar sama rakk jooju génn dem muy Asou Diouf. ndeysaan Asou Diouf waaw di ko ñaanal moom it yàlla may ko fan yu gudd ànd ak wér. yàlla tànn ko ca tànneefam ya. bàtt na bi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam waaw di jaalewaat waa Fane Ndiaye rek sañu mu ndijaay ji jiitu ji korok dimanche ñu ndijaay Cheikh Tidiane Ndiaye ah loolu di yëguñu ko waaw di xalifa maam Moustapha Ndiaye ndijaay Cheikh Tidiane Ndiaye Cheikh Tidiane Ndiaye waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko loolu imaam Cheikh waxuma ko xanaa da ko fàtte waaw da koo fàtte ko ñoo fa nekkandoo woon ah nijaay la ci moom wala bàyyi la ci moom ah bàyyam la bàyyam la ñun la nekk sañu ndijaay dëgg la moom bàyyi la ci moom bàyyi la ci moom moom bàyyi ma bokk bàyyi yàlla na ko yàlla yërëm allahumma amiin amiin amiin. moo nekkoon xalifa ba. waaw moo nekkoon xalifa ba. xalifa maam Moustapha Ndiaye wante maam Mor Ndiaye papa Cheikh mooy papa Cheikh Omar. mooy xalifa mooy papa Cheikh di ko ñaanal yal na ko yàlla yokk wér. te yàggal ko fa lool. yàggal ko fa lool Ndiaye jaata Ndiaye dëgg Ndiaye aywa. ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. maa ngi ziar ñëpp daal. jërëjëf Cissé. di jaala tamit imaam Ablaye Ndiaye moom nekkoon. waaw ndax moom it bàyyam la ki génn àdduna dëgg la ndeysaan moo ne imaam Abdoulaye ñoo nekkandoo woon léegi waaye waxuma ko de wallaay wallaay wallaay rek maa ngi jàll ko yàlla yërëm allahumma amiin amiin amiin amiin jërëjëf ñu ngi jaale suñu wuy jur woowu gaañu ca Cham Ndiaye di xalifa maam Moustapha Ndiaye ngi koy jaale di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla yërëm ko yàlla yàlla xare ko aljanna ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, yàlla rëccu lu fi doon def ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ngi nuyu ñëpp tubaarakallaahu xam naa tubaarakallaahu sàmba si mi may wax ni ma sa waxtu jeex na tubaarakallaahu ñu bàyyi taxawandi foofu rek incha allah ba beneen émission ci kàttanu yàlla ñu àndaat ak yéen ci liggéeyu cheikhu Tijaan bi àndaat ak yéen ci liggéeyu cheikh Seyd El Hadj Malick bi radiallahu taala anhu wa ardaahu bihi amin da leen yëgal rek incha allahu rabbi eh, tàkkusaanu Mam Cheikh Umarul Foutiyu radiallahu taala anhu nek le 1er janvier 2019 le 1er janvier 2019 deuxième édition bi inshallah allahu rabbi di amé et Télé Diallo Inch'Allah allahu rabbi su ko defee koy bayilo ñepp xel le premier janvier oustaz Pape an sunu xarit bu RFM incha mom moy yor animation bi fofu nak tubaarakallaahu ñu bu ko tardé ndax kenn ku nekk xam na oustaz Pape Hann et tubaarakallahu fi mu toll ci waxtaan ci diine fi mu toll nag ci waxtaan ci cheikhu Tijaan cheikh El Hadj Malick cheikh Omarul Foutiyu radiallahu taala anhu kon képp koo xam ni bëgg nga dégg kàddu gu am solo tubaarakallahu waxtaan wu neex waxtaan wu teey damay wax ni Pape Hann ci oustaz yi nga xam ni ñoom duñ dugal kenn safara dañuy waxtaan ngay neex muy neex mel ne yaa ngi biir aljana toog noonu la oustaz Pape Hann di waxtaane te noonu la ud'u ila

ak oustaz Mansour Fall ci yéeneem waye tay jëm ji ñewu nak ndax dafa am ngant ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp sant nak sunu technicien bu am solo bu yaru bi te xarañte man limi def di Hadji Samba Sy sant suñu directrice sant mboolem ñi nga xamni ne ñoo nekk ci radio bi di fi liggéey di leen ñaanal yàlla dafa leen tawfiq dig na leen daje benen aljuma insha allah wa wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh